du waxam du waxto waxtoom du waxtoom ma toogaat fii Dame Mbodj nekk ci boppam deful live kenn xamul fu Dame Mbodj ne ñu woowati ma système bi <laughs> voilà génnal information bi Dame Mbodj instant yi ñu ngi négocier ak moom gouvernement bi ñu ngi négocier ak moom jamono ji ci négociation lañ nekk ak moom ma def tek jënd ak information mais mënu ma jot daa mboj pour no mais lu mu demee noonu ma ma ko xaw ma ko information bi denc information denc information te pourtant moom lañ ma bëgg peut-être peut-être peut-être ñoom bu ñu la waxee mën na mën na xëy na daa mboj mën na génne la ma def tekk te information waxuma daara génn ma ne waaye attention daa mboj gars yi dem nañ gisi ji ko pour wax ak moom daa non dama ne denc information bi mu yàgg ci man ma ñëw dóor kot au lieu ma ñëw ne Dame Mbodj gars yi ñu koy rapproché non defuma loolu dama ne ana Dame Mbodj Dame Mbodj gën nañ la gis de Dame na génn ah raar na temps yi de kot na temps yi na génn bokk <laughs> ndeysaan ba léegi waxuma ni ay eh, Dame Mbodj ngi négocier wala gars yi dem nañ ci moom wala non parce que man ak Dame Mbodj ñoo bokk benn combat Dame nekk fi moo ma arrangé Dame taxaw fi moo ma arrangé day mel ni ñaari tànk ñaari tànk yu taxaw moo gën a yomb foofu benn tànk bu taxaw ma def teg dóor kot maa ngi doog a expliqué dóor kot ana Dame Mbodj mais gars xool leen Dame wër leen Dame fu Dame ne fu Dame ne gars yi non dafa bëggoon dafa doon bëgg accuser Dame Mbodj du fekk xoola xaw jegewuma foofu mais dama leen di comprendre parce que may xam ni bon c'est vrai c'est normal information yi perception yi amuñu perception information bi may am ni ma koy analyser nu may contourner gars yi te pour pourtant ni gouvernement bi des fois nu may ni ñuy jëlee ay information dama ko sànni ci samay nit bëgguma ñëw joxee ko noonu du ma ko joxee noonu temps buñ ko bëggee ma koy def du ma ko defee dama koy denc transformer ko ba mu rafet ma joxee ko sama nit wala ma dem woo ko ne ko gars yi nga lay fanal de gars yi ne nañ lii de wala tout je le fais yàkkamtuwuma information loo ma jox damay toog teg jël sama temps xalaat xool nan laa war a contourner lii sama nit la kii nan laa war a def pour wiiri nan laa mun a defee nii nan laa ko mun a yàqee nan laa mun a loolu laa gëm nit nekk na fii di wax wax wax dem nañ dugg ko wax ak moom ba enregistré ko te mi ngi fii di wax waa waa waa gars yi yónnee ma audio yi faj faj faj faj lépp ma déglu ko ba léegi musuma ko wax maa ngi audio yooyu nit dugg na na ba woo waa ji ba enregistré ko ba lépp ju pour xam nga mënoon naa tey audio yàgg a de li ma lay wax nii war na def 4 5 mun naa génn audio ne oh, wax naa kii kii wax naa kii te bi tey wax naa kii xool leen fii déglu leen audio maa ngi yor audio yooyu du ma ko def xamul la parce que kooku ak man ñoo bokk benn combat lu tax waa ji dem wax ak moom di ko enregistré ba di ko jël di ma ko sànni pour rek ma jël audio yi sànni ko pour yàq non loolu dama yàq sama nit. te nit nu mu bañ bañ bañ wala nu mu bon bon bon bon bon na ma ci xeex bi parce que li may xeex moom moom lay xeex sama ennemi mooy ennemi malgré que dafa juum def ma ennemi mais non moon sama ennemi mooy ennemi donc man du ma ko xeex <laughs> man dama koy jël ma cadré garder ko du ma ko wax du ma ko def du ma def lu ko yàq. naan Cardio parce que moom daf ma arrangé ci xeex bi xeex bi benn nit du ko xeex ñaari nit du ko xeex ñetti nit du ko xeex ay nit ñoo koy xeex donc say nit doo ko fagaagal doo ko faqastal ak loo xam ci moom dangay denc wala boo ko mënee lay biir nga woo ko nag ah defal attention de est que xam nga ni tel waxoon nga ak moom kooku enseigné lu yónnee na ma ujjee defal attention daal boo wax ak ñoom de xool nooy wax ak ñoom parce que gars yi tam ay nooxóor lañ ay dëmm lañ taxawee na la rocceeku kon nag sama gars le combat continue ay ca bu kenn des ginnaaw woote nañ le 7 le 8 le 6 le 7 le 8 vive la révolution vive la révolte vive les cocktails molotov voilà ñun dégluwuñ procureur Abdou Karim Diop bandi salte Abdou Karim seen procureur bi bu leen ko fàtte dañ leen leen ko rappeler seen gardien Tony Silva yéen a ngi koy fàttaliku am fi jabaram takk ko ci siraatal mustaxim ñu am ay njaboot ñu jàppante dem justice fekk fa Abdou Karim jóob mu leen di juger Abdou Karim jóob daane Tony Silva seen gardien nangu alalam yépp jox ko jabar ji lu mu gagné lu Tunisie va gagné woon ci coupe du monde ba lim leen fi bëggal ci coupe du monde lim leen fi bëggal ci coupe d'Afrique lim leen fi bëggal ci championnat yi lim leen góolul lum leen naawal lu leen jàppal bal tout lépp lu mu def alal gu mu am yépp mu jàppanteeg jabaram seen procureur bii ngeen am nii Abdou Karim Diop nangul alalam yépp injustement jox ko jabar ci ñu ne déet na waay mu suufu takk jabaru Tony Silva ba dóor am moom benn doom wulli ko ba mu jeex lekk xaalis bi yëpp xaalisu coupe du monde Tony Silva ba coupe d'Afrique ba championnat ba lu muy def yëpp mu lekk ko ba mu jeex takk ba jabaru Tony Silva ba ne wàll mu ne ko nii comme bal buum tulli ko mu dem ko kese de Abdou Karim Diop day takk di rek kii loolu la def kooku bu ñëwee di la wax cocktail molotov ne leen ko duul fese bés bu génnee fii xam nga démb la def mu reporté ko mi ngi toog lu mu xool lu mu fen mooy troisième procureur bu mun a fen da ngeen kaa fàtte nag seen xeex bi bu leen ci fàtte Bassirou Gueye lu salte la fi liggéey da ngeen kaa fàtte kenn waxatul Bassirou Gueye je vous entends plus parler de Bassirou Gueye yéen ku ñëw dem ngeen fàtte moo tax ma gëm ni tey bu fi Macky Sall jógewoon ngeen fàtte li fi si Gueye def li ngeen fi yëpp léegi da luñ tudd sax Bassirou Gueye mel ni existé wul liggéey bu salte la fi ba léegi mi ngi fi mi ngi fi taaje fu ndox yàgg boo demee fekk fa tepp tepp Bassirou Gueye def na fi liggéey bu salte Hamadi Diouf ñëw remplacé ko def fi lu salte ñëw jox ko booyam suppléant am Abdou Karim Diop mi ngi fi tey Abdou Karim Diop woo Saliou Sy Zaf def ko suppléant ba bu Abdou Karim Diop yéegee Saliou Sy suppléant mooy ñëw toog procureur suppléant ngeen bàyyi ci xel ay bandi ngeen amal affaire ay caga drogué ay sulaar ay criminel ngeen amal affaire taxaw leen pour jàmmaarloog ñoom ay dëmm in firo laqat jaaxum ay nooxóor ngeen amal affaire taxaw leen temm pour jàmmaarloog ñoom Abdou Karim Gueye Abdou Karim Diop amul nii vergogne ñii dignité dara amul lenn lu ko may mu war a taxaw ak ñun gor yi naan day wax ak ñun naan dañuy jox ay leçon wala daf ñuy menacé bés bu fi génnee ne leen ko hee eh, bàyyil jabaru jàmbur yi ngay suufu di jël bàyyil jigéen yi ngay toroxal di sàcc seen alal dama liggéeyi cagala bandi salte la sàcc la buñ demee ba Sénégal léegi ay procureur góor jigéen lañ ci am Ibrahima Bakhoum ay sulaar Pape Amady Diouf ay sàcckatu jaboru jàmbur ay détourner l'argent euh, du contribuable ñoom Abdou Karim Diop ay tuxkatu yàmbaa ñuy tëll ñuy tux këll yàmbaa ay Saliou Sy Saf bu dee procureur lañ am kenn di ki tux yàmbaa ba ne tag kenn ki mandi ba ne tag kenn di ki juutu ñu laal ko ci tuun ba mu ne tag mooy eh, a Bakhoum kenn ki sàcc alalu jirim sàcc ay teere jàmbur laal jabaru jàmbur eh, Abdou Karim Diop ñu ñooñu lañ ku fa taxaw ñu lay jugé sa yaay baaxul man de ñooñu duñ ma jugé adduna du neex mukk ba ma taxaw ab sulaar eh, Pape Amady Diouf naan daf may jugé moo ko def def tag ndur jabaram di gedd këram di daw yóbbaale ay doomam muy tëddee mindaanam kooku man kooku du ma gisee kuy juutu di joxe boppam Ibrahima Bakhoum du ma gisee kuy sàcc jabaru jàmbur lekk xaalisam kajj ko du ma gisee Abdou Karim Diop kuy tux këll yàmbaa def tag du ànd ak sagom du ma gisee ça le sisaf et cetera et cetera kuy laal jabaru jàmbur ba biiral ko ay Mamadou Seck deuxième cabinet du ma jugé mukk mukk dee ma ko gënal kon résistons les ga vive la résistance le 6 le 7 le 8 tout le Sénégal dans les rues occupons les rues taxaw jëmbal suñu bopp pour sauver la nation peace and love and a jaarama one love